أعوذ بالله من الشيطان الرجيم siisa yaa bon yaa bokk mbon yaa ab xaj yaa ya yoore yaa ab tax siisa yaa bon yaa bokk mbon di ab xaj yaa ya yoore yaa di ab tax amuloo kersa moo taxit neex wax xamuloo war sab xolit dafa xëy amuloo kersa moo taxit lu neex wax amuloo war ma sab xolit dafa xëy nax li nga xëy wax rat loo na képp ko am xel taragal yàlla yaa ka xeebu baraw fel li nga wax biig seytaane sax rus na koo wax sa ciinul moon iblis da koy xam ngay bax waaye cey soo xamoon li yàlla di xaare ñi fi fetterlu doone law ba di maare taaxuraan moos ngay tëkkaleeg lii di quraan ak tiyaatar yi yépp doon jëfi caaxaan li ma yaakaar te fas ko mooy dañu laaruux walla am lool gimiñ gu bon nga da koo guux amuloo gàcce jombuloo dara ci bon saña xoorey barab bu yaata bari ron aka neexoon lislaam di àtte ci miim réew bañu teewal ko nit ña war ko ci ay géew jéng tànkam ya njoñ loxoom ya tàlli toroxal lépp lum yilif ba mu gàlli